ginnaaw bañ ko gisee moom journaliste bi di Pape Alé Niang mu doon def révélation yu deewaal si ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko ne kat ñi ngi koy waajal ay pexe yoo xam ni bis bu sottee du baax si benn yoon ki ki doon ne sax lañ ko gisaa doon si ki nga xam ni moo di Clédor Sène doon wax si pexe yi nga xam ni ñu ngi koy waajal ngir faagaagal ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko avant élection présidentielle 2024 yi nii moom mii di Ousmane Sonko dafa mel ni daal dinay mujjee àddu si mbir moomee daal di koy confirmer ni ngi ay pexe yoo xam ni kat ñi koy koy waajal ngir mu dal si kawam ngir mu bañ a bokk si li nga xam ni moo di présidentielle 2024 yooyee ba tax na sax muy woo képp ko xam ni yaa ngi doon ab militant wam ngir kate ñu gën a jug daal di takkuwaat ba dëggal daal di préparé yooyee pexe ngir mu bañ a sotti yooyee kàddu sax mën nañ ka jàppee ay confirmation yoo xam ni moom mii di Ousmane Sonko daal dina koy def si li nga xam ni moo di kàddu yi nga xam ni Pape Alé Niang doon na ko yëkkati ak ki nga xam ni moo di doo Sène